asalaamaaleykum sama gars yi dal jàmm ci seen podcast Tok Tek Music eh, di voilà jotaay bi nga xam ne fii lañu fii lay waxtaanee ak yéen lépp lu jëm si musique si technique eh, si voilà lépp lu jëm si MO incha allah donc eh, fii amee donc ma leen koy indee chaque quinzaine voilà chaque quinze jours ak épisode bu bees comme ça am temps mën voilà. mën di ko déglu voilà comme ni ma leen ko waxee woon si euh, instant de détente yi de partage et cetera donc ce de voir aussi euh, di leen déwénati ci korité bi ñu génn donc euh, di ñaan yàlla may ñu ay déwén yu déwén kenn bañ a manqué voilà yàlla mën na ko yàlla ko amin donc sans plus tarder on va faire un petit preview ci li ñu jotoon waxtaane wala boog dima jotoon waxtaane ak yéen si lu jëm si lan mooy eh, statut ak eh, les responsabilité dans les gestions ak lan mooy statut et responsabilité dans technicien son pour ñu xam kan mooy kan voilà ak ku bëgg nekk ingé eh, son lan nga war a mën a def pour yegg foofu noonu ak nekk technicien son tamit voilà dinañ fexe daal ba incha allah képp koo xam ne mu ngi si milieu mën a def la différence et ki nga xam ne daf si intéressé woo mu xam yenn qualification la war a am pour euh, nekk ingé wala nekk technicien son donc euh, cette fois-ci euh, bon pour ñi nga xam ne ñu ngi soog jot si épisode bii nii moo leen ne am na yeneen ñaar épisode yu njëkk jot a jàll donc mën ngeen dem ngeen déglu ko balaa ngeen di sore si bii nii bu ko defee voilà ngeen mën a nekk à jour mu ngi si playlist bu tudd Tok Tek Music si biir chaîne bi ngeen dem ngeen xool ko ñu ñëw léegi si suñu troisième épisode donc tey on va on va parler de manière beaucoup plus décontractée ne vous inquiétez pas <laughs> conseil, euh, on va toujours rester sur sujet technicien et mais on va essayer de le contextualiser aujourd'hui en au Sénégal. Qui se peut-on considérer comme ingé son comme ingé son et technicien son donc déjà euh, si imagerie bi si milieu bi quand tu dis à quelqu'un que tu es un Nége Son li muy xalaat mooy yow da nga nekk ci studio di def prise de voix mixage mastering euh, voilà bon naturellement c'est ce sont voilà les responsabilités d'un Nége Son que bon on est gestion studio parce qu'il y a des gens qui sont ils sont dans les studios en même temps dañuy defar les spectacles il y a des gens qui sont ils sont spécialisés que voilà dans le, le son studio am ñoo xam ne son spectacle live et, euh, pareillement pour les techniciens donc euh, aujourd'hui, on va beaucoup plus parler de, voilà, de ce qui se passe dans les studios. Après, euh, prochainement, on va parler de ce qui se passe dans les spectacles live. Donc dans les studios, Le schéma est là, donc euh, daayger dafa ubbi benn studio ut ay matosam ut na machine am carte son ut ay moniteur am voilà defal na studio ba mu nice léegi mu daal di def benn appel ne voilà je cherche un ingé son voilà wala boog euh, on prend n'importe qui il contacte daayger ay gars me dit voilà man gis naa ne voilà yow euh, beatmaker nga et cetera dama soxla ingé son ku ma toog si studio bi di ma gérer prise mixage ak euh, mastering voilà donc da ay bu dëgëree fit danaan d'accord mën naa ko jéngu daal di dem toog foofu noonu di def prise de son mixage après le gars ou bien le propriétaire il va dire sama ingestion bi kii mooy ingestion bi kii mooy gérer studio bi donc euh, c'est lui qui va se charger defal la prise de voix mixer la ak sa mastering voilà parfois sax mu nekkaale beatmaker bi et euh, sachant que voilà dans les grosses boîtes voilà de production musicale day am un compositeur quelqu'un boo xam ne il gère que la composition am koo xam ne c'est un éditeur moom mooy def editing bi maanaam moom mooy voilà jël projet yi xool yan piste moo baax yan moo baaxul wala def editing bi def leveling bi xam nga genre xool piste yi ndax am na ay déchets et cetera def benn genre petit traitement nii benn mini traitement avant mu koy passe euh, mixeur bi mu def traitement xam nga approfondi bi jël ko parfois avant loolu arranger bi ñëw arranger son bi wax voilà ban piste mooy njëkk a ñëw ban voilà ban parti ban parti ban partie si le mixeur bi soog a ñëw après mixeur bi on donne à la euh, euh au master et euh, en général la la maison de production du moom sax moom mooy gérer le, mastering de ses propres euh, productions day jël jox ko une personne tierce boo xam ne dafa am studio de mastering parce que un studio d'enregistrement un studio de mixage un studio de mastering professionnellement parlant ils ne sont pas pareils dafa am ay spécificité dinañ ci ñëw si beneen yoon incha allah mais nekkuñ sax benn mais puisqu'on est dans le monde du numérique euh, on peut tout faire, on peut tout faire. Euh, c'est même espace de travail. On, bon, on va dire quoi, on va dire, sans, sans exagérer quoi, mais on, on, va dire. Parce que maintenant il y a le mastering digital, voilà. Euh, qui fait que mon gars, de cette prise de voix, voilà, me poser, de se poser un mixage mastering. C'est bien le logiciel déjà et euh, tu fais le mastering, c'est bien, logiciel. Mais il faut savoir que le, le mastering en général, c'est c'est le plus, c'est la dernière partie et moi partie beginner détachée aussi production. Parce qu'en général, les grosses maisons de, de production d'une sax gérer le mastering de leur de leur propre produit. Donc, il y a tierce. koo xam ne loolu rek mooy liggéeyam wala ñu jël su fekkee ne amuñu un mixeur si seen dañ koy jël jox ko keneen mën des fois mën nañ am une personne boo xam ne il est habilité à faire les mix de de leur production mais il préfère le donner à quelqu'un d'autre voilà mais le contexte ici au Sénégal mooy c'est là et bon partout ailleurs hein, mais plus ici au Sénégal mooy c'est une personne qui gère tout ça qui est en même temps compositeur preneur de son mixeur <laughs> mais euh, master voilà moom mooy def lépp en en gros donc kooku noonu je me dis que ay responsabilité am dañuy gën a diis parce que il faut mu am ay notion ci wàllum composition il faut mu am ay notion ci wàllum solfège et cetera et cetera prise de son il faut mu am notion si par exemple quand il doit faire une prise de voix et quand il doit faire des prises de d'instruments yenn micro moo adapté par rapport à sa prise parce que du n'importe quel micro ngay capter n'importe quel son donc kooku noonu war na mën a xam bu fekkee nënd la yenn yan micro moo adapté wu pour jël genre euh, ces instruments là bu fekkee kora war na xam ban ban micro moo ko war a jël et cetera ak fan la ko war a placer pour am son bu baax bu fekkee ne par exemple n'importe quel instrument war na xam yan micro c'est-à-dire le choix des micros et l'emplacement des micros war na ko mën a xam donc ñu jege ci présentation même prise de voix euh, war nga mën a am plusieurs micros pour voilà pour essayer d'adapter plusieurs types de voix voilà on peut comprendre benn instant le budget peut ne pas être là mais quand même mu am ci ay notions que ni ëllëg bu ko yàlla bu leen yàlla dimbalee ñu am xéewal dinañ jéem fexe ba nu ñuy euh, yokkee seeni matos pour ñu mën a atteindre benn résultat de qualité si ci seeni produit donc war na mën a xam bu fekkee ne moom mooy mixer les sons war mën a xam les outils de traitement qu'il utilise voilà que mu bañ a yem rek ci preset yi nga xam ne moom lay fekk si biir play gi ni wala boog les preset yi nga xam ne benn copain wam moo ko jox wala daf ko seetaan ci tuto bi tuto yi wala juste euh, son prédécesseur ki nekkoon ci studio bi moo ko fa bàyyil muy utiliser même preset yi si même contexte yi si même situation yi donc war na dépasser loolu war na xam par exemple que ni chaque voix avec son traitement voilà chaque type de voix avec son traitement et dans quel contexte nga koy mixer parce que la manière dont on mixe en son rap c'est pas la même chose qu'on mixe en son euh, chant c'est pas la même chose qu'on va mixer en slam c'est pas la même chose qu'on va mixer en, en, en podcast ou bien en benn voix off ce ne sont pas les mêmes les mêmes les mêmes techniques qu'on va mixer dans ces situations là donc cette personne là doit être habilitée à avoir ces notions-là. Donc, vraiment la ça euro, parce que quand c'est dit, bon, si j'ose dire ici au Sénégal, euh, le mastering digital, on fait du mastering digital. Donc, on utilise des plugins pour faire des mastering. Mais, comme je l'ai dit encore, Gameland Sop, et vous, vous recherchez les studios de mastering. Vous voyez une configuration avec des studios de mixage. totalement différent. Mais comme je l'ai dit encore, toujours, si on contextualise, actuellement en 2022, même certaines grosses boîtes, euh, ils font des mastering digital. Donc, ils n'utilisent pas des hardware, ils n'utilisent pas des, des compresseurs physiques euh, voilà, des, euh, des outils, vous ramenez et, Ils vont pas utiliser des GQ euh, physiques et tout. C'est ce qu'on appelle des hardware. Ils vont utiliser les plugins et tout pour faire leur mastering. Mais même sans même avec le mastering digital, dafa am environnement boo war a mën a mixer am environnement boo waree def prise de voix booy mixer ak booy masteriser aussi ce n'est pas pareil. Et on revient toujours si si si la réalité que le budget fait défaut. C'est-à-dire tout ça là, c'est de l'argent et l'argent, n'y en a pas parce qu'on ne génère pas assez d'argent pour mener am yooyu les yooyu les euh, cadres parce que malheureusement notre industrie voilà on n'a pas encore d'industrie hein malheureusement ah, il y a des personnes qui peuvent euh, nous, rassurer en nous disant on tend vers ça mais quand même ça prend trop de temps ça prend trop de temps bu ko defee voilà tu vas voir des des des, des personnes qui vont faire euh, qui vont proposer des prises de voix message messaging à 5000 francs à 10 000 francs ñi gën a gëm seen bopp gën a am lu ñuy bañ voilà ils vont proposer quinze mille francs vingt mille francs comme tu vas avoir aussi des studios professionnels qui vont proposer cent cinquante mille francs pour une session genre tu loues le studio euh, pour telle et de, de telle à telle heure tu fais ce que tu veux tu amènes ton ingé son tu occupes carrément le studio et tu fais ton taf voilà tu tu fais tout ce que tu veux après nga dem ñibbi coup-là, c'est question de budget, question d'argent. Et c'est important l'argent, moo tax il faut chercher l'argent musique moom munoo si ne te t'as pas d'argent parce que t'as besoin d'acheter des choses t'as besoin d'une machine performante t'as besoin d'avoir un micro performant t'as besoin d'avoir des convertisseurs performants t'as besoin de tout te lépp day jar xaalis même les plugins qu'on utilise, on sait que nous, on, on est des voleurs, on, est, on utilise des, <laughs> des plugins qu'on craque, on, on, est des voleurs, on vole ça. Mais bon, tu vas voir, il y a des gens 19, 19 dollars et 20 dollars, par mois. Mais on sait que les filles, mais on n'a pas cet argent-là. Mais ça amène une autre, une belle réalité, moi, c'est pas que ni da nga war a am les motos nécessaires pour faire de la qualité cherche d'abord la connaissance parce que la connaissance va te permettre que ni même bu fekkee da nga am le strict minimum de matos di nga génne qualité su loolu noonu tu vois donc euh, nañu jéem ut xam-xam bu ñu yem kase si li ñu miin maanaam rester dans le dans notre zone de confort que ni voilà am nañ benn benn benn formule pour appliquer ko ci compresseur bu fekkee dañuy mixer voix am nañ ko ci benn benn genre am ay ay ay ay ay formule quoi pour voix nii laa koy mixer lii ak lii laay def yaay gis koo xam ne tak buy teg compresseur tak day day dem am du sa xalaat day dem ratio 4 daay def bu fekkee voi ma daay ngay gis ngay gis mu daay def def compresseur daay def ratio 4 daay def attaque xam nga ay vingt vingt release mu daal di daal di def threshold même nga gis ne même preset yi lay utiliser si même type de voix et c'est dommage parce que les contextes diffèrent les voix diffèrent donc il faut que tu t'adaptes par rapport à ces différences là et c'est ça en fait le ni koy waxati challenge bi nga xam ne moom lañ moom la ñu war a atteindre on doit challenger notre propre euh, suñu bopp pour mën a dépasser loolu noonu yëpp car la musique le son ça évolue de manière extraordinaire chaque jour donc nañ jéem fexe di nekk à jour par rapport à ça et ça ça concerne képp ko muy man muy képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci son yaa ngi liggéey ci studio yi et cetera ou bien tu tends vers ça donc euh, tey euh, on va s'arrêter là pour cet épisode et di leen wax ne euh, on se donne rendez-vous à, à la quinzaine, madame, dans 15 jours pour un nouvel épisode. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous trouvez euh, les épisodes. Voilà, j'aurais c'est une impression et tout, parce que j'en ai besoin pour m'améliorer et vous donner le meilleur de moi-même. On se dit donc à très bientôt et prenez soin de vous. Peace.